ñun dañu bëgg benn gouvernement boo xam ne day taxaw askan bi gouvernement bu social boo xam ne day jege population am quoi parce que je pense que ni moom ci lancé boobu la nekk quoi président Macky Sall. gouvernement moom li ñu xaar ci moom mooy mu liggéey pour askan bi rek. régler n'est-ce pas problème sénégalais yi ci wàllu lekk ci wàllu naan ci wàllu électrification n'est-ce pas ak ci wàllu dundin daal. ñu oyofal dundini Sénégalais rek loolu la ñuy xaar ñoom. li ni mel la askan wi di xaar ci gouvernement bu Amadou Ba fas yéene jëmal ci fan yu ñu néew donte ni am na ñoo xamante ni jàpp nañ ni buñ ñëwee itam politique rek moo leen indi. njëg yi yokkoon dindi na ko problème yi amoon dañ na dara dañ ko ak 4 lu mën a def ku def lu ma 12 12 mois mënoo def dara 4 mois mënoo ci def dara mënoo ci changé dara loolu ku defut xam na ko gouvernement campagne lay mu àndal pour dem campagne. jël mooy. juróomi des ci élection présidentielle. Ngor si di xamle ni gouvernement mën na fi liggéey lu bëri. ah ce n'est pas une question de timing pour man parce que état ne fonctionne pas ay 4 mois 3 mois et cetera donc euh, institution moo fi nekk seulement nit ñi ñooy remplacer wu. léegi nag nit ñi ñëw dañuy inscrire wu ci benn dynamique continuité rek bu fi nekk donc ils non qu'à véritablement essayer de réaliser li nga xamante ni moom lañ fi teg accéléré wu bañ nekk politique. bañ a nekk aussi comme on appelle un gouvernement politique trop politique non non non on n'en a pas besoin on a besoin tout simplement d'un gouvernement bu nga xamante ni dina dina dina dina dina dina travailler à ce que condition nit ñi population bi mën a mën a mën a gën a nekk quoi mën a gën a jàppandil ci waaw voilà ajjuma juróom benn fan ci weeru octobre njiitu réew mi génnee ab dogal ni daal di tas lii di gouvernement bu Sénégal askan wi daal di nañ xamale ana lan la ñuy xaar bu fekkee ñenn ñi ñu ngi dundee yaakaar ba tey ñi ci des moom li ñu xam ne rek gouvernement bu Macky Sall mënu fee defaat dara lu dul politique.